asalaamaaleykum mbokku internet Leewtoo TV comme ni ñu koy defee chaque semaine fekk fi nga xam te ne nekk toog waxtaan moom ci actualité lamb tey nag ñu ngi fii Médina stade Iba Mar Diop nar a waxtaan ak mooy combat bi ñu diffusé démb acca sama caméraman topp ma ñu wax ñu nuyu naa la fay naa la soxna si Babacar Diop waaw xoolaat naa ko si téléphone rek gis naa ko waaw xoolaat naa ko waaw neex na de di ñaanal Reug Reug rek mu yàgg am victoire yi noonu si combat yooyu ndax moom moom garmi lañ daanaan la neex na trop waaw di ko si ñaanal bu baax a baax a baax mu continuer am ay victoire et victoire waaw incha waaw waaw fit bi dana ko ko may doole dana ko ko may aussi technique bi aussi waaw rek rek kay lu mën am si làmb wu yombul lu bëri mën na ko cee am waaw man naa ko si mbappan mi ba duggee si arène bi aussi seetaan neen ko bi duggatee si làmb yooyu aussi mooy loolu ñu ngi koy xoolaat bu baax a baax te mu ngi ciy def lu leer di ko ñaanal yàlla mu continuer noonu rek ah ah waaw mais du yomb ñëpp moom mënuñ xam nga Sénégal moom dafa bëri mbër <laughs> Sénégal moom pour ñoom ñu dugg foofu moom du yomb moom mais du ñàkk na am ay quelques personnes yu si dem comme rëg-rëg comme Siteu aussi ak xaama rëkki la woon xaama voilà mais nag ñëpp moom mënuñ dem foofu noonu moom moom kay ñii dañuy dem ñiy resté moom waaw parce que Sénégal moom yaa gën a xam daa bari mbër macha allah wax dëgg yàlla moom combat yi doon xaar yëpp yu si bëri moom gars yi taxawal leen ko waaw ku mel Modou Lo kan la euh, naka la Ama Balde euh, Siteu Papa Sow Balla Gaye Bombardier Eumeu Sène gi Lac de waaw combat yi neexee moom instant bi moom ah, moom kii leen koy jox Modou Lo parce que moo moo ko njëkk si làmb mag moo ko jiitu aussi daal mais Ama wax dëgg yàlla mën na fa mën na mën fa puus mën na déjjati foofu noonu kii naka la Modou waaw ci bu wér a wér a wér kay. fans lañu wax sëñ bi nuyu nañ la. ah. waaw fay nañ la. yaa bu baax. déedéet combat bi moom seetaanu ma ko moom mais maa ngi ko doon xaar bu baax nag. yëgu ma ne génn na loolu yaa ma ko wax soxna si. ah non rek rek du nit yow rek rek moom bul sonn rek rek kay fi mu jëm moom. non yàlla na fa yegg rek. ah xanaa félicitation rek. di ko encouragé mu gën a yokk entraînement yi te xam ne sigil na Sénégalais yëpp voilà loolu rek laa koy wax. merci jaajëfal naa lañu xool kenn ki nga xam ne seetaan na combat bi ñu daal di waxtaan ak moom. salaamaaleykum. moom daa tëdd wala jugal kañ ngay jóg. parole aux fans la ñu wax ah fépp la ñuy dem fépp la ñuy dugg aussi. da génn. bul ngeen toogal bokk jotaay bi. waaw ah, maa euh, naa la. fay naa la. waaw waaw seetaan naa ko. ah kontaan rek. comme Reug Reug moom macha allah moom li muy def Sénégal rafet na lool moom la dem. wan ñu ko fee. pour man fierté la. parce que bi ma ko déggee à tout moment dama tapé sama téléphone ma xoolaan ko mais kontaan naa ci ñaanal ko yàlla lépp lu mu fa jëlee daal yan nam ko jik Euh, mu andi ko fii Sénégal te daal kontaan nañ trop nag presque nu mu nu mu def waa ji man bu bu dee man fierté la pour man fierté bu rëy rëy rëy waaw loolu daal moom seetaan naa ko kontaan naa ci parce que damaa jënd sama connexion xool ko waaw parce que jaral na ma ko parce que rëg-rëg la te sénégalais la te macha allah nu mu représenté foofu noonu daf ma neex trop. Euh, comme bi ñu kiyee nii di bokk su nii ba ci kanam bu bi mu ko songoo ba mu jëlee tànk bi dafa tëlaat beneen tànk bi si suuf macha allah jël boobu moom xam naa ne bu doon bu doon télé Sénégal mun mën na dugg top 5 wala top nangam voilà. ah ñu góorgóorlu rek def comme regret quoi parce que mbir mi moom liggéey rek la ah, man gisuma jë beneen secret bu dul liggéey liggéey kese moo fa nekk képp koo xam ne daal yaa ngay dem daal liggéeyal rek. Euh, non man nag sincèrement boobu rek laa xoolaan euh, ban combat yu ñuy tëggi nii no Ama Baldé Modou Lô moom moom laa gën neex na ma trop bu mu inse bi làmb ji moom soxna si amul favori parce que na neex rek parce que eh, macha allah dama leen di gis euh, de temps en temps damay tape ma xool leen mais seen entraînement doy na ma mais nag Ama moom may sama kii waaw Ama moom bu ma sañoon moom yan na ma am ndam ci ko Modou waaw. waaw détourné roi bi parce que man làmb moom Balla ma ci Balla ma ci kii te Balla moom macha allah ñu ngi koy xaar sax si combat bi moom tey mu ñëw jaaral ñu fu mu doon jaar rek. Mhm. kontaan rek comme làmb la sport la sunu réew la te ñoom ñu ngi ci ñu ñaanal la yàlla rek ñu avancé. ba léegi ah parole au fan lañ wax bi nuyu nañ la. oui maa ngi leen di ziar bu wér a non non man de combat bi tey sax laa koy doog a dégg si yéen combat boobu kay wax dëgg yàlla xaw ma ko moom non non yëgu ma ko. combat yi ñu taxawal ren n'est-ce pas Balla ak kii taxaw na ak bombar euh, Bombardier man moom boobu moo ma dàqal si combat yi ni moom parce que Balla Gaye mooy sama mbër quoi waaw. bu baax te aussi da koy daan dañuy jël suñu revanche daan. Balla Gaye de. man la sa fan si jàmbaar di la ñaanal yàlla nga góorgóorlu na fexe jëlal ñu suñu revanche loolu rek lan soxla ñun waaw bu baax. waaw Ndeye Mbacke maaleykum salaam maa ngi leen di nuyoo di nuyoo waa Leewtoo production di jël nuyoo bi di ko teg ci seen loxo yow Ndeye Mbacke nga joxal ma ko ñëpp yéen sunu sunuy xarit ngeen sunuy nit ngeen ñu ngi leen di si siyaar bu baax macha allah. waaw loolu ñu ngi koy rafetlu di féliciter Reug Reug parce que doomu Sénégal fu dem bu amee ndam Sénégal rek la ko la ko amal ndax ndam li génnul Sénégal ñu ngi koy ñaanal mu amee ndam ay ndami ndam ci barke yonent bi ci barke Serigne Touba yàlla defal ko ndam li jikko mbër yëpp visé li nga xam ne mooy MMA bu mbëri yëpp bu woon dem MMA est-ce que dina arrangé lamb sénégalais. non loolu du arrangé lamb Sénégal mais loolu boo gisee mbari yi di ko def feebar bii la ñuy ñaan yàlla jóge jëlee ko fi parce que lamb Sénégal moo ko xam. làmb Sénégal moo ko jox àqam fi ñuy dem di ko wuti ñàkk pexe ñoo tax ñu koy dem di ko fa wuti mais bu làmb doon dox Sénégal duñ génn Sénégal parce que ku nekk xam na ne làmb doomu Sénégal moo koy def Sénégal lañ koy defee kon bu demee mbër yi demee ba di génn di dem international di ko fa wuti feebar bi fi am ak làmb gëj a am loolu rek moo tax mais incha allah dina ñëwaat fii ah, àggale làmb yi ci kàttanug yàlla. combat comme affiche yëpp a ma neex affiche yëpp neex na ma. parce que man mi taxawal na ku ci demee ne Bill du Serre ak Dieng Bios booy Dakar jox naa ko avance ah, sama xariti promoteur yi taxawal nañ combat yoo xam ne nii macha allah combat yëpp a neex combat bu ci naqari amul. combat yooyu est-ce que pare nga pour tëgg li nga xam ne mooy huis clos. waaw moom pare naa ko loolu man maa ko jëkk d'accord ah, association promoteur authentique bi ma bokk nga xam ne maay eh, Dieye mooy président ma nekk vice président authentique ñun pare nañ pour tëgg vinculo bi ñu incha allah. ñu gis Jamaïcain ubbi saison fee nga xam ne mooy Gambia People est-ce que promoteur yi aussi pare nañ dem Gambia tëgg fa ay làmb. non man moom parewu ma Gambie dem Gambie pour tëgg fa làmb comme Jamaïcain suñ rakk la suñ frère la te mi ngi foofu di baax rek nañ ko fa bàyyi bu fa Jamaïcain nekk di fa tëgg mel na ni promoteur yëpp ñoo fa nekk di ko tëgg. combat royal entre Modou Lo euh, Modou Lo Ama Baldé la moo ci sa gis-gis. waaw combat boobu. Euh, Sénégal gépp a ko bëgg parce que Modou ak ak Ama Baldé combat boo xam ne ne combat bu neex la Sénégal kon yàlla na ko yàlla àggale ci jàmm rek. non favori moom ñoom ñaar moom wax dëgg yàlla samay ñoom ñëpp laa yemale que le maire gagne mais mbër mu mënta daan amul ci làmb bu dëgg rek nga bëgg a dëgg parce que bëri na ba àgg fii moromam bëre Modou nag di ndaanaan loo xam ne nii. kenn mënu koo canaliser parce que mbër mu bari feem bari curux curux combat boo xam ne ni ku ne mën naa daan sa sa morom que le mhm. ci wàllum ah, foofu man kenn laa fi mënta jox ñaar ñëpp ku ci am nga avantage bu dee mystique la Balla euh, Ama Baldé am na mystique Modou Lo am na mystique te ku ci nekk am nga staff boo xam ne nii staff bu xereñ la boo xam ne nii man mal naa place wax ci koo xam ne nii. daal ñoom ñaar daal que le maire gagne hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci. ba léegi ah parole au fans lañu wax ah fu fans yi nekk rek gars yi ñu sama cameraman bu ñaawul bi sañ bi nuyu nañ la. maa ngi doon la ziar bu baax baax Omar lañ ko wax Omar. réew waaw démb seetaan naa ko quoi démb. en tant dem ba extérieur taxaw fi li nga xam mooy drapeau Sénégal ban jàngat nga ci am. jàngat bi ma si am mooy réew moom kontaan nañ ci moom bu baax baax te ndam li ñu am ñu ngi koy félicitation. ndax ndam li ndamu Sénégal yëpp la di ko ñaanal sa combat mu koy saag am ndam quoi ndax ndam li moom ndam Sénégal ñëpp la di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan daal lim nekk moo xam yàlla defal ko quoi. Modou Lo Ama Baldé neex na. Balla Balla Bombardier Balla kii nii Bombardier yaakaar naa. Balla Gaye Bombardier kan moo ci sa favori ci ñoom ñaar. man Balla laa jox Pikine ndax Balla mooy sama bari quoi. Balla Balla dama koy ñaanal bu àggee li nga xam ne mu def lu ko indi rek dem daan ko ñibbi yàlla may ko ndam yàlla def combat bi taxaw ak jàmm am jàmm mu dem def li ko fi indi ñëw bari du ma ko daan ko ñibbi loolu laa ba léegi ah sama gars yi par au fans lañ wax ah ñu daal di dox ndànk rek daal di xoolaat keneen beneen fans beneen supporter wala beneen amateur daal di waxtaan ak moom salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar di la bëggee. Ibrahima Faye lañ koy wax. waaw kontaan rek. parce que ñun ñëpp ay ay sénégalais lañ te moom sénégalais la. tax ñu kontaan ci combat bi quoi vraiment. di ko ñaanal quoi mu dem sa kanam. parce que champion la quoi. moom combat ki nga xam te ne mooy guy gi. mu dem signé beneen quatre komba ci fi nga mooy MMA bi yow sa gis-gis. waaw oh, sama gis-gis mooy làmb ji moo taxaw affaire de Covid bi moo tax noonu la mbër yëpp nañ dem préparé bi baax na xam nga làmb ji taxaw na Sénégal kay na dem jël jël contrat bu amee dix contrat na ko jël man loolu laa koy conseillé quoi. jàpp nga ne mbër seen mbër mbëru arène Sénégal war dem mbëri MMA comme rek rek ak. oui mbër yëpp war nañ ko def. Sénégal mbër yëpp war nañ def def dem def MMA bi quoi vraiment mbër yëpp nañ dem entraîner ji def loolu loolu la ñuy xaar ci ñoom quoi champion yëpp parce que làmb ji pour l'instant nii kenn xamagul fan la jëm nañ nañ gën nañ dem euh, bëre di def MMA bi woy diversion boobu am ci euh, ci biir làmb ji écurie bi écurie bi est ce yaakaar nga ne suñu bëggee boole nekk benn poñ dem fi nga xam ne mooy MMA bëri loolu dina mën a nekk. waaw mën na nekk loolu loolu loolu parce que ñoom ñëpp Sénégal la ñuy représenté dañuy dem rek. suñ demee boo ne dem bu ñëwee fi tamit mooy loolu kenn ku ne dem sa écrit ñu ñu ñu ñu kii business la daal affaire bi waa xaalis la quoi loolu la comme ni ko Tyson di waxee rek <laughs> affaire business la business. affiche yi am ban affice moo la ci gën a neex combat yi ñu taxawal. yi ñu taxawal Ama Baldé Modou boobu kan mu nga yaakaar mooy favori. Euh, Modou mooy favori waaw. xeex kan nga jàpp ne moo dàq xeex moromam. Euh, xeex bi. ñoom ñaar ñëpp euh, ay bagarrerie la ñuy def quoi mais bu ndee xool ci gën a ci xeex Modou Lo la waaw mais xeex bi moom sorante wuñu si quoi ñoom ñaar ëppalante wuñu si. mystiquement kan nga yaakaar ne mooy dominer. non mystiquement moom xoolal 50 50 laay joxe foofu <laughs> waaw 50 50. combat xam ne Pape Thialis moo ko tëgg entre Tapha Tine ak ki nga xam ni mooy Boy Niang 2 nga ci. non waaw bu neex ak noonu tamit ah euh, combat boobu tamit 50 50 laay joxe quoi du ma jox kenn favori Euh, Tafatine moo xaw a jiitu euh, Boy Niang si làmb mais na def attention Boy Niang def ay preuve am fekk si ko kon combat man pour man amul favori man loolu laa gis quoi combat bi euh, Tafatine nag laa faral. bool bool. Ah, mais boo boo ko ñi mën faral keneen kul Tafatine waaw <laughs> ah, Tafatine waaw di ñaanal rek parce que nag man ñun man. dëgg la dinaa far quoi am naa droit far mais dama bokk si làmb damay ñaana rek ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw ci ñoom ñaar ñëpp daal ñu ñëw si jàmm di ñaanal tafaatin mu dan waaw ñu bëre ci fair play ñaan tafaatin daan ko ci kàttan. bëgg nga ñu bëre ko huis clos. si mo ah mais loolu lañ loolu sax moo war a am huis clos moo war a am ñu ñu làmb ji fi neex yëpp jàll ñu dem seeti leneen parce que saison bi lang na lee mu jeex weer koor gi si biir saison bi la nekk dañ ko def huis clos bëre combat mbër yi sonn nañ trop ñu ngi xaar ñoom ñëpp a sonn muy mbër bu ndaw muy bu mag ñëpp a sonn mais nañ ko bëree nañu état bi jàppale ñu def ko véhicule bëree combat yi dem loolu la ñuy xaar quoi. lan ngay wax waa Leewtoo TV. waaw waaw di kontaan ci yéen parce yéen a ngi bay seen waar quoi maa ngi leen seetaan yéen a ngi bay waar bu baax a baax di leen ñaanal rek li ngeen bëgg li ngeen bëgg si si aar bi si làmb jeeg yeneen ak yeneen defal leen ko loolu la ñuy ñaanal daal parce que yéen a def li ngeen war a def daal. merci ah kontaan nañ ci. Eh, ah, mbokku internet Leewtoo TV dañ leen indiloon ci nga xam ne mooy parole aux fans parole aux fans nag ni lay demee chaque semaine toog waxtaan ak ci actualité làmb jaajëfal naa sama caméraman bi Momo Momo Mansour Momo Mané yaaroon dawal bëgg naa la Yacine Fall ci technique bi Ousmane aussi jaajëfal naa équipe Leewtoo TV yëpp dañ jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jaajëf.